ma jéema kañ te bàkk Seex Abdul Karim makaarimul axlaaxi Mbàkke yaa nu yem ma jéema kañ te bàkk Seex Abdul Karim makaarimul axlaaxi mbakkaanu yeem doomi sëriñ la dib sëriñ bu yaarame rafet ji ko waral mu bare ay xame doomi sëriñ la dib sëriñ bu yaarame leen di saare bu baax a baax te di jox seen wàccuwaay tur bi Cheikhouna Gaye la di ndongo luy liggéeyal borom Tuubaa noo ngi santaat sëriñ bi bu baax a baax di santaat ki nga xamante ni moo waral lii lépp muy sëriñ Tuubaa Cheikh Amadou Bam jëwrinam ji nag di sëriñ Xadim bokk ci gayndeem yi liggéey bi di liggéeyam mu ànd ko ak waa diwaanu Paquetas Jalla jaamu yàlla liggéeyal borom Tuubaa tey jii nag ñu nekkoon ci wàccaay yi màggal gi daanaka benn fan ñu dese mooy li ngeen di gis nii lépp rek ñu nekk ci dernier réglage yeeg yi ni mel noo ngi ñaan daal mboolem liñ ci yéene te di ko mbébét rek borom Touba defal ñu ci lu kawe njort lool ba ganu borom Touba yi bu ñu ñëwee ànd ak mbégte ak xol mu sedd diirug li ñuy dund ci màggal bi te lépp jàkk barke Cheikh Amadou Bamba na jàpp rek li maam Cheikh naan wax naan góor jàpp ci góor loolu daal moo fi nekk ndax suñu xaadim moom ku ko xam-xam ko ci yitte ak pas-pas ak lépp rek mu jëmale ko ci borom Touba kon nag lii ñuy def mën nañoo wax ne yitte la goo xamante ni moom moo ñu fi bàyyi muy liggéeyal Sëñ Tuubaa kon nag mboolem lu ngeen fi gis rek ba muy nduru lu ñu yéemu xam leen ni ñun gàcce la doon ci ñun te lu ñu xeeb la suñu digganteeg Sëñ Tuubaa